ak aussi naka ngay traité li nga xam nek modi euh, man groupe Sonko Sonko TV manam ñom biñu nek ci opposition amon nañ groupe bu wax Sonko TV numéro 1 groupe bu mag la won man fexewon na ba sama numéro dugg fa. ok man loolu sama problème de. nga infiltré leen. fexe woon naa man xaw ma infiltré waaye sama numéro duggoon na. infraction la de. groupe WhatsApp waaye nañ top fa le groupe WhatsApp. alors <laughs> fexe ba sama numéro dugg fa ben boy bu dof bu ñuy wax Moussa Baykat moo ma fa duggaloon. ndeysaan donc mi non exactement boy bu dof. alors ci responsable SICAP bi laa jaaroon nax ko ci la ma balancé Moussa Baykat ñu jokkal ma ba ne carax ci groupe bi. Hmm. xam nga lu ma fa jëlee. Hmm. sëñ Bass Abdou Khadre lañ doon saaga ma saaga leen ndey daw génn. ñu xam ñu xam ñu doog a xam ne maanaam parce que lu ñu lal fii ci réew mi mënumaa ump. lu ñu fii lu ñu fi teg mënumaa umb seen ligne de defence ni ñuy défendre ni ñuy jugee guddi heure bi ñuy réunion bu ñu jugee ni ñu war a demee ci plateau yeeg. bu ñu war a attaqué nit ak lépp mais yow lépp dama kaa comprendre. du ma nangu ngay attaqué suñu confrères yi exactement. du ma ko may confrère rek tudd ma benn journaliste. ah parce que da nga ne plateau télé yi. du journaliste yi rek fay de man journaliste la Cheikh Bara Ndiaye journaliste la Pa Moussa Sow journaliste la. ñoom ngoone ay journaliste lañ. ah ngoone journaliste sa digganteeg yàlla ban école la génne. wax ma rek. nga ne Saliou Diop wax ma ban école la génne fu mu jàngee caaxaan baaxul boo dee salma sax borom borom kanam gu ñàng gi sax tane na. génne na Isaac euh, moom bu dee bu dee ka ca tamit corom corom maxu Mandela tane na maa ngi nuyu maxu sama waa ji ñooñu sax man nga ma ñooñu sax njort naa ne ay journaliste dama yaakaar rek est-ce que seenum njàng sax egg na est que jànguñ ba ci diggu ba ñu bàyyi ko fa sëyi yooyu yëpp problème la. parce que gisuma caractère maanaam journalisme lu ñu war a def maanaam jëmmi journalisme li mu war a def ñoom defutu ko parce que journaliste warul farfarloo de mën na far nag ndax bu vote jotee journaliste dina dem vote ji ñëw toog mais information bi bu ñëwee journaliste bi digganteem ak yàlla lay xool parce que dañ ne la information bu ñëwee na ko traité xool ndax dëgg la wala du dëgg na ko vérifié boo ko vérifié ba pare na nga xool ndax bu ma ko génnee dinaa yëngal réew mi wala bu ma ko génnee du yëngal réew mi. bu loolu yëpp dajoo nga xam ne boo ko yëg génnee du am benn rëkk ci réew mi. Mm. boobaa nag kenn mënu la téye nga génne mm. mooy nga seet sa digganteek yàlla mais léegi. Mm. lii jëf ji nan lañ ko mën a jàppe nit ku sàcc signature premier ministre. ñu ne ca pat est gis nga yoor yor bind ko à la une bu sëñ Saliou Gueye gisoo ko. non sëñ non sëñ Saliou Gueye est un journaliste très crédible. waaw léegi lu tax bindul signature premier ministre bii ñu luubal defu ko à la une ci yor-yor parce que jarbaatu Baara Ndiaye moom lañ ca tudd léegi nag réew mi nii la fa yéenee fonctionner moo tax nag di filtre di infiltre seen groupe yeeg di dugg ci seen i caaya yëpp day dagan xam nga lu tax sinon askan bi duñ xam démb Moussa Diakhaté Moussa jaxate néewu la am na cardiation bu jugee bitim réew ñett indi ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo nekkoon bitim réew lu tax état bi communiqué wu ci. bu ko bu ko Moussa Diakhaté yow waxutoon dinañ ko gëm. dinañ ko euh, mais est-ce que état bi est obligé de communiquer. aussi tout Macky Sall bokk na liñ ko doon Macky Sall bokk na liñ ko fi doon diaboliser mooy dañ ñaaw transparence amul. bokkoon na ci liñ ko doon waxal léegi nag ñii buñ ñëwaatee gis nga ñii luñ tolloog Macky Sall rek Macky Sall da leen di gën te lu wér te wak luñ fi doon wax Macky Sall ci ñaawteef ñi ngi def lu ko pire lu fi Macky Sall liggéeyoon commencé guñ ko kon ñii daal bu doon examen la man naa ne moom d'office lañ leen di exclure parce que nag boo ñëwee remplacer nit yow cinq mois yi lan ban dégg nga fi ñu poser première pierre. ah mais nag mais nag essai danoo nekk si état des lieux Abdou Abdou danoo nekk si état des lieux. mais waxuma ko de. <laughs> fay leen ñu continuer alors mi ngi noonu exactement. maanaam teg benn xeer ñu naa ah, jomaay fii mi ngi fi commencé benn hôpital au moins sax mais sangomar bi tamit nak ak tamit ak tamit suñu suñu sangomar bi dem neen ah exploitation waxuma loolu de tek pose première pierre exploitation Macky Sall defar nako ba dem ñi ngi ci tiit sax ndax contrat yi deg ñu nan dañ koy renégocier waat dañ koy ah, li man gëwuma lolou te bis buñ ci aggé dina ci gëna yaatal ndax mënu ñu la tuddu ci ay milliards yu jógee tëloow ak ay Qatar nga bëgg négocier wat suñu pétrole bi est ce que jaayoko avant ngay ñëw yooyu dinañ ci ñëw waaye xoolal lu fu mel ne Azer entreprise bu gagné marché nga dem nangu ko jox ko ay tubaab. mais weddi na directeur bi. joxu ko tubaab bi. weddi na de lu mu weddi joxu ko tubaab bi loolu la weddi daa ñemee weddi loolu. le plus jeune DG. man kooku est wér na sax est-ce que ça va sax kooku ñu fal. muy siiñ noonu est-ce mais dafa neex dërët rek. bay moom ça va bopp bi muy. <laughs> yow sa doomu réew nga ñuul bon teint comme ñoom. tey booy renégocier marché bi woo leen nga leen marché bi comme comme euh, nu mu tudd sax 700 xaw ma lan. 5000 euh, xaw hmm. xawma ñaata village xaw ma 700 ñaata village. Hmm, pour électrification bi na ngeen koy man bëgg naa ngeen yokk ko def ko nangam. renégocier ko ñoom bu ñu bañee. boobaa nga xamal askan bi ne ñii dama leen woo pour ñu négocier intérêt askan bi ñu bañ mais defoo ko da ko ne fan ñett jox ko tubaab ya loolu ci lu mu bokk. pourtant loolu lañ doon wax Macky Sall naan dafa jël su réew mi jaay ko tubaab bi. Hmm. wala tubaab yooyu dañoo cotiser woon ci projet bi na leer. mbir ni gis nga réew mi daal ci gàttal dugg nañ ci giraawaali daal. alors mais euh, mais mais quand même euh, démb Abdou euh, ñu assisté si benn communiqué boo xam ne itam jóge na c'est si l' ancien président bu ki nga xam ne que moo di Macky Sall alors démb mu daal di acté la dissolution bu li nga xam ne que moo di Benno Bokk Yaakaar.

ak ñiy défendre projet bi. mais test bi leerul en fait. waaw ñiy projet bi ñoom noonu lañ koy déggee ndax buñ sañoon bennoo tas parce que lii ñuy yor ak lii ñuy yor moom xam nañ du dara xam nga yow li lii problème bi xam nga fan seen xel waroon na tey ki waa aar suñu projet. yow nga fal nit mu wëlbatiku. Hmm. fal ay nit naan leen dem leen défendre projet bi projet bi kay jëfu ko war a défendre. mais Macky fii la yàgg ne défendre leen ma défendre leen ma sama liggéey ak sama bilan. mais Macky Sall kenn défendre ko xam nga kenn défendre ko waaye moom moo ko défendre heure bi leer na nañ ba ko kenn défendre tamit jëfam heure bii mu ngi koy défendre ndax loolu laal ñu ne la makkee ba mu buuba jaan demee bëgg a nax nit ñi dañ ne ko makkee kon bennoo heure bii dañ ko war a réviser waat parce que boo defee congrès mën na am ay xëccoo man la man la man la man la man la man la man la ñi mën a ànd ci bennoo nañ toog waxtaan ànd ñi mënta ànd dem ànd ak leneen ñu defaraat ba mu jekk suñu législatif yi ñu jëm nag. mana andak baña andak saña and li force la xam nga législative yi ñom nu mel. moy hmm. nga am sa kër nga tudd ba guddi ay abo yu ne fa rip doomu aawo beeg ñaarel buñ xulo xulo ba da wara a jeex si yow xulo ba sante bi jeex ñaareel beeg aawo bi xulo bi war na jeex tank wuyu bi gennul kër gi xulo bi da wara jeex bam genn hmm. wala ngeen japp ko lu bonam ngeen dogo continuer fa la rew mi toll heure bi ñeenti ci opposition bi ñëpp baawuma kenn nag waa PDS ñoom sax moom waxuma leen ñoom ci teg xel lañ bëgg dox moom ñoom seen àdduna yëpp teg xel la. ah parce que dañ leen wan ginnaaw. waaw ñoom non waxuma wan ginnaaw sax ñoom tooyuñu woowuñu xamoo fu ñu faat. dañ leen xamul fu ñu faat non démb waa kër Xalifa sax non ah. xam nga politicien. démb kay ñëpp ñëpp xam nga démb loolu affaire gars. politicien non dama bëgg défendre seen. loolu de yow yéen xamu leen politique moo tax parce tax xamu leen hmm. waa ji xam na ni bu ma voté day jàll su ma voté wul day jàll bala ñu maa jàppale seeg askan bi naa leen seetaan ak ñi moom combat bi. ah comme ñoom dañuy joué euh, tànk. yow ñun ñoo la gën a xam ne suñu voté mbir mi waa APR 83 lañ am mënuñoo muus muus gis nga démb député député bi bokk ci sañu safaa sax mm. li mu def waa waa passif duñ ko wax Massata Samb. Mm. gis nga li leen def dañ ko jox procuration pour mu voté votel borom procuration bi mu génn salle bi dem yoonam yóbbaale procuration bi. mo waral ñu am 80 vingts députés deux yi Massata Samb la woon ak kiko yoni même deux yoy su jallon day nek 82 mais même benno buñ amone ben benn absence. benn bu ñu amoon benn absence Massata ñew dañuy tolloole mais lu tax Massata génn pour gëna yombal duma yi dem benno dem buñ amone ñaari absence dañuy am 81 ñi am 80 day jall yow mbir mi yuuxu day ji fuñ ko foogee wutone yow nan lañ la ko procuration nga war a voté voté borom procuration bi nga ànd ak moom génn. Mm. <laughs> loolu mooy lan. mais euh, léegi loolu noo ko mën a jàngate kon nga xam ne seen mbir mii seen mbir mii député yi génn wàll gi voté wuñ mais voté nañ. parce que xam nañ ni tout tout lii moom day jàll. mais démb ñoom dañoo frustré woon la fa xewoon euh, Sonko sonkorisé li nga xam ne moo di salle bi di assemblée nationale ñu dàqulu euh, li nga xam ne moo di public bi par le président de l' assemblée nationale concrètement non salve mo un am mais mais euh, mais oh, oh, mais Mais. politique Mais Mais. parce que. politique wu ñom ñom ñom ñom ñom ñoom ayib dafa ngi préciser ñom Cheikh ni. xam nga yow position rek di di di di. xam nga xam nga ñom ñoo wara ba ñoo wara bay fu ñuy dem seen golo seen yoy golom nationale lam ba mu fa demee di jéem a jaay populisme ay xale yu ndaw a ko bëggoon toroxal toroxal ñam àndal kon nag gis nga ñii bu ñu amee jom tuuti dinañ dem liggéey te bàyyi seen populisme bi ñu nekk parce que munoo fooy dem bu say golo yóbbu assemble ñu civilisé ñoo fa nekk. Mm. ñu yiw ay honorable ñu xoolal lañ leen wax honorable ah. nga jël ay golo bëgg leen a teg ci kaw. ñuy cëppi <laughs> cëppee ko wadd waddi loolu duñ ko nangu. Amadou Mame Diop loolu dama ko ci félicité duñ ko nangu gis nga fañ yéeg donc jëfi golo lañ tàmm gis nga leen ca kaw. jeex na Amadou sa waay Amadou Mame Diop kilifa la. mais foofu place publique député yi député yi mais dem public ay golo lañ teg ci kaw ñu nekk fa yuuxu di yuuxu ci kaw yow nit ñi war a voté ay loi war am tranquillité ministre baa ngi toog kee sax ma ngay nelaw mais yëpp nga am séance noppi calmement golo yi ni ci kaw bëgg a cëppi cëppi mais Amadou du ko nangu de ki tax mu évacuer salle bi dégg ci kaw la nekk naan justice pour ñoom ñoom martyr yan martyr martyr dafay am. bu ñu xam nga yow yu fi. wadd wadd assemblée dafa yàgg seetaan. assemblée de jomaay jomaay sax bu ñëwoon toog ca kaw. mais marti bu defee bëri Amadou Mame Diop génn ko parce gis nga Amadou Mame Diop moo yili foofu. émi assemblée dañ koo fonk fonkaay boo xam ne hémicycle bi sax ku dul député doo fa dugg maanaam seen seen kii boobu géew boobu. Hmm. ku dul député ministre bi sax du fa wàcc. ci kaw lay taxaw ci baar bi wax li muy wax ne mottu dem. amul sañ-sañu dugg foofu. yow en tant que citoyen ordinaire ñu may la yow pour nga ñëw seetaan yow seetaan lañ la may nga toog seetaan nga nekk ca kaw di def yëfi golo duñ la dàq ca bitti léegi loo bëgg ñu bàyyi la fa nga perturber perturber nit ñi. mais am mais mais am son acte tey dafa dafa nekk dafa nekk loo xam dafa jaaxal nit ñi parce que tey dafa ko mu xaar ba tey. waaw golo yi la. gën a assemblée lu nekk xew na fa Guy Marius Sagna yëkkati na fa kees et tant d'autres et tant d'autres. ñu dugg nangu kees gi.